moom naa ci waxi pile lay wax pile. lu ñuy pile ab douche lay suñu pile. waaye dem jëm douche duñ koy pilee. moom lañ ko jox koy bit yaa ngi may dégg. waaw am na mbit. te boo yéexee sax ma jënd guro di naan di mandi. xoolal ci kii ah eh eh bu waay xoolal. ah juróom fukki at tabaski boo ko amul sax yàlla àppal na la ko ba ca ginaar. xam nga yor xale bu ci gi man tamit dama war a xotti. léegi may ma 300000 rek dinaa ci mën a lijjanti quelque affaire.